tey rek ma ñëw ci leneen mooy yow man tëgg yow moom bu la neex nga tëgg koo neex mais fi ma toll ci laa du ma laaj kenn damay toog ñu woo ma xam nga xam nañ samay morom buñ ma fayalu ko jar ma bëree. ku ñëw baax ku ñëw baax na mel ne kuy bazar de sa bopp yàlla tere. saa kees nag. saa nag moom góob ñu bëri quoi. non gëmu ñu bari affaire la moo tax non amuñu relation amuñu relation maak moom mais dama am ko ko jege ku ma amal relation bu sérieux ah, moo tax ko non ba affaire bañ sax kooku su ma waaye la moo tax te daf may jàppale ci yu bari te suñ diggante bëgguma làmb du ko yàq daal. waaw hmm. coowal daara yi. soxna si coowal daara yi moom est-ce que mën naa ci sori xam nga coowal daara yi mënoo mënoo far fu bari quoi parce que wax dëgg yàlla xam naa daal ku jàng ñu dóor la quoi. waaw ñun ñi abu xaw nañoo rey fii te tey xëy na looloo looloo ñu dimbali quoi. waaye mais sa mais tamit il faut ñu xam ne ñun duñu ay tubaab quoi moom ba muy def loolu deful pour dafa def pour dimbali xale bi nañ xoolee dynamique bi mu defee quoi bu ñu xool jéem bi rek nañ xool lan moo tax mu def ko xam nga. xam nga tey ku lay dimbali naan la awal fu baax rek bis boo amee ci sato yeeg yooyu ngay xam lim la doon jëriñ ñun ñi te abu dañoo dóor ba ñuy bëgg a dee mooy suñu imam tey fu ma ko gis dama koy song abu xaw na noonu mais tey anamu tax na toxuñu naanuñu jëluñu alalu jàmbur nekk ci lu war a nekk. dëgg la dëgg koy def ñëpp wéeruñu rafet nañ leen non déggoo li dama ne kuy dóor jigéen yëfi doof dañ lay war a jàpp yóbbu la rafinar loolu laay wax man ku ci gis kuy dóor jigéen rek ëffal koog man ma fajal leen jigéen ñi samay xarit lañ parce que man du ma ko def ko wax dëgg yàlla. dëgg la jigéen la ko pour dóor. non pour dóor sax nag jigéen moom mooy loolu. dëgg hmm. ci wax par force. ñëwal. wàllum phobie yi lëmbee réew bi fu mu nekk nii. dëgg la toj. dëkk bee toj dëkk bee toj moo tax gars yi nu ne lañ koy lijjante mais dëkk bi moo toj moo tax gaa yi nu ne lañ koy liggéey lijjantee moo tax mais dara erreur la rek erreur moom mënul ñàkk. ah na ci réew mi xam mais xam ci réew mi mais justice mi ngi def liggéeyam ko boo gisee léegi quatre-vingt-dix pour cent yëpp ñu ngi leen di jàpp voilà mais loolu ñoom dañ leen koy bàyyee ñoom. justice ay xale ndaw mais dëkk bee toj te dañoo bëgg a teral seen i yaay te Sénégal la toll fii ku yorul bokkoo loo leen di hmm? maa leen sant maa leen wax ñu liggéey teg jaamu yàlla après mooy loolu. Hmm. ana waaw non Tidiane mi ngi fi Tidiane fay mi ngi fi léegi nga gis ko sax heure entraînement jot na ne ko réel mi ngi fi sama copain maa ngi nuyu nekko bu baax ah di wax gars yi ñu ko jël. sa gisuma ko xamaluma ko dara. pourtant sa copain nekkatuñu ay copain la. ñaari déedéet yooyu ay détails la amatul. du ma ci débat gisu ku kuy kooku gisuma ko non jotewuñ gisuma ko gisuma ko ma ko dara non gisuma ko xaw xaw ma ci lu mu ne. lu waaye def boppam waaw di leen bëggee bu wér di bëggee seen site internet bi di leen béggee lu wér di bëggewaat Lamsar waa di bëggewaat sa caméraman bi di kontaan ci émission bi yàgg nañ ko bëgg mais xëy na tey la ko yàlla dogal xat-xatu àdduna beeg yaa ma gën a xam waaw noonu lay demee daal bëggee ñëpp bëggee mën a rëy mafia bi bëggee ñëpp góor a kees xam nga euh, Modou Cheikh Fall Baye Góor ñëpp kuy jàpp ci combat ñu lay bëggee dem Amérique bëggee sama mafia bi fa nekk bëbba sama copain mu cheikh Mohamed Mbuub mm, El Amin Alaaji xam nga di bëggee ñëpp ma kenn quoi démboo Père Alsane Père Bijel xam nga Père kër Grand Mamar maa ngi bëggee ñëpp daal képp kuy bëggee fëgal ñu lay bëggee bëggee mafia bi zës maa ngi koy bëggee bu wér suma gaan suma lonko ceer borom défoncé bàyyiwuma kenn Xaadim Touré gars yi bëggee naa ñëpp saa ngoone gars daal mafia bi Karim maam Ousmane xam nga ñu ngi bëggee maam Ousmane bu baax di bëggee bàyyi Jibi Laay xam nga ñu ngi bëggee ñëpp Baye Fall bi ci ruq bi ñu ngi koy bëggee sëñ Moustapha ñëpp képp kuy jàppale Feuguera rek ñu ngi lay bëggee di la sant di la gërëma ah. big up Cheikh Niang président écurie Lamsar ñu ngi koy sant di ko gërëm Père Aline Diop suñu entraîneur ñu ngi koy sant di ko gërëm big